wàllu tuuti rek programme Indiana. maaleykum salaam Jamila papa. Jamila <laughs> Jamila di nuyu ñi fi hmm. happy bisu hmm. koy wax so man hmm. wax <laughs> ah man laaj la. laaj la sama doom bu sama valentine Mom neex na ci xol. mom rek mom dongo mom kep keneen bokkul <laughs> ok that's very nice uh, comme comme uh, su ko defee jamee lañ ànda tamit seeti beneen performance de mm-hmm. Kumba ndeysaan ak Adama suko ko ñu tàccul Kumba ak Adama ñu dugati si gox-goxaan yi ba tànn fa juróomi mbër yi nga xam ne masala ñoo wara a ñëw fii nga xam ne mooy combo war a bëre bi fu nekk nii nag bés bi masala jege na loola ndax bu weer bi deyee ba am benn fa nag ñaari fan si maaj bi ñu ngi dugg si nii si la bëre bi di am ñu ne bëre bi nag ñu ngi koy amee ji foofu nga xam ne mooy Serekunda te di leen xamal ne amul fay ñëw seetaan na bëre bi masala di leen si tànn ki nga xam ne moo gën a mën a bër te it bu boobaa ñu koy jox tur bu bees ñu xamee ko si king of si Youssouf Cissé ban gouverneur mooy ànd ak moom ñu ngi fàttali gouverneur si yéen ñi nga xam ne da ngeen tànnoon seen juróomi mbëri léegi tey mbir bi jot léegi tey ñu seet ban gouverneur mooy dem ak King of Cissé Ba na ñëpp dem foofu nga xam ne mooy Serekunda West Port ñi nga xam ne ñoom leen àndal King of Cissé Ba ban lay jógee ban dëkka mooy dem ak King of Cissé Ba King of Cissé Ba King of हपुन कमते आज आज आज मालूम हुआ क्या किस मोहब्बत होती है एक रोज तुम ना मिलो गिबानु के हालत ते हम ना हमें ना लन मोई बुगा अंग बगेल से आदन बा हम्म। बेना बेस सुमले दिसुतु damay mel ni ku dof kon bëggeel dafa nekk loo xam ne dafa war a sax si xol di dox si xol comme noonu rek ah, naka la moo dayee sama xol di dem si sa xol di gee sa xol la war a demee <laughs> exactly waaw that was a nice performance um, ñu koy gërëm bu baax a baax ak ala moom tamit di xale bu am jom su ko defee tamit ah, dinañ jox tamit ah, gars yi fële ñoom tamit ñu wax Adja Hadi Diallo waaw waa boor bi ñoom ñu wax Adja Hadi Diallo Diallo jéeri li nga sanse nice na mm-hmm. macha allah Jamila. Ah, jambira aya ah, hadi ñu ngi la si programme bi am fans club bi foog naa ne ya mom. ko moom so lan nga am pour wax si programme bi tay? fii ba amul fi de nëbb amul de wax rek fii <laughs> amul wax ma kan sa valentine yo wow that's nice waaw tàccu leen loolu suma yaay mooy suma valentine parce que am um, dama gis ne comme que amaguma jëkkër mm-hmm. moom laa choose fi mu nekk moom moo nekk di most important person in my life amuloo mm. awma dara awma ah. dara dara dara laxa laxay laxa tegee nekkuñ ah. um, uh, uh, mooy uh, comme que Valentine bi ñu ngi ko célébrer mhm. ñaan naa am lu bëree bëri bëri bi ñu sukka jox ko ko. like what like lan nga ñaan. Um, like anything special rek anything special. anything special anything special moo jox yaayam nga ko woo jëkkër. <laughs> laa ko bëgg a ñaanal ah. <laughs> waaw baax na yëpp si loxo yàlla daal waaye daal my mom is my Valentine. waaw. Mhm. thank you very much. Aja Hadi. comme comme Jamila nii rek su ko defee Jamila nañ gërëm ñu xam ne tamit dañ bokk ñu sponsor si bés bi tey. defe naa la bàyyi nga. man mii war naa wax parce que soo gisee tey ma toog fii sol red and black. ala ma taxaw sax. <clears throat> DJ Indiana Fashion Shop moo si jaar. Euh, Ababacar Cissé Ababacar Cissé. nekk si Ababacar Cissé waaye. mi ko gërëm di ko sant lagi gerem temi baax la di gërëm tamit Adama Mané tamit ni ñawkat moom tamit bokk na tamit sponsor si bes bi ñu gerem gërëm di ko sant bu bah a baax place am bi nga jàppale ma si boori Njaay's Drive Njaay's Drive Ko bëgg mel ni wala ku bëgg a façon yëri pour Valentine bi rek ko àggee mooy loolu mooy loolu so defee yëg yow tamit maa ngi lay gërëm di ko tey macha allah ni nga mel neex na ma loolu maa ngi seen gannaaw yéen Ko su ko defee nii rek lañ ni rek lañ ko defee tay ba si mbëggeel nañ wax si mbëggeel ndax mbëggeel dafa doon luy sax du sax ci xol li gëna tax doomi aadama bi di dunda ndax mm-hmm. so amé real love mën mm-hmm, nga dunda taw ni sa doo ko so it's very important ñu am love within yes way bala ñu dem ba si kanam rek ñu mm-hmm. andal bena vox pop bu ma def ak gaay ci biti am suñu dellu sé rek programme bi continuer ok Valentine lañu wax Valentine nag suñ ko déggé ñu bari am nañ firnde yu bari daa comme nit ku nekk amal na ko own definition am waaye soo ko boolee yëpp daal mu ngi laa wax mbiri mbëggeel tey nag looloo waral ma génn ci biti bugg a waxtaan ak nit ñi ñu wax ma ñoom lan mooy seen xalaat si li ñu wax Valentine toppaleen ma ñu dem. waaw Valentine nekk na loo xamante ne bii dëgg la dañ ko dee célébrer benn yoon ci at bi waaye foog naa ne nekkul na tamit benn yoon rek dañ ko war a célébrer always dañ ko war a célébrer because uh, diggante ñaar ñoo xamante ne bii uh, mbëggeel mu seen diggante comme like yow si sa bopp sax xam nga. mën nga koo defal sa mag xam nga saraka wala sa mère bi sa everything daal képp koo xamante ni bëgg nga ko sa xol rek foog naa ne war nga naa féete loolu noonu bu baax a baax te war na naa tamit xaar ba bis bi jot ngeen ko féete foog naa ne always tamit xam nga dafa neex daal ngeen ko defalante seen diggante waaye bis bi tamit rawatina si bis bi ni ñu toll. waaw war nañ ko célébrer parce que foog naa ne jamono bi ñu toll ah, dara nu wóotuwut daal yëpp yëpp yëpp dafa feeñ foog naa ne. aduna bi yëpp ñoo tolo si everything lu ñoo def so kon war nañu bokk ci ñu ko celebrate ñun tamit waaw waruñoo des ginnaaw si loolu noonu. yow la ok man tuma my own understanding Valentine dara la lo xamantene it's not only for like foraja, Diagne yaa ma fi la bo xamantene kep ko xamantene ha ah, yow bu nga ko understand mun nga xoo mun nga xoo sen Valentine message wala nga wis ko happy driven Valentine it's not loo xamante ne comme euh, Fara Jaaxa rek ko war a see yaa ma fi ba comme suñ génération bii nii ñu bëri dañ ko dee get twisted comme sa living nekkut gift nekkut yëpp lu nekka si biir xool bi moo gën a important yee mun nit mun naa ñëw mu jox la gift fekka lu neex nekka si biir xam nga nobody knows so dama dama living rek xam nga damaa gën a focus on suñ génération bi ñu jël ko ndànka xam nga ñu xam ne daal lii nekkul ne loo xamante ne la daal soo ko defutee tamit yoo xam nga waaw yoo xam nga <laughs> maa léegi yow nga gisee jànxa yoo xam ne wala nit yoo xam ne dañoo jël ay kéek yóbbu ko ci seen këri far yi mu jaral leen sa fekk fa keneen xeex yow naka nga gisee loolu. waaw loolu amacoo la rek amacoo yi ñoo dee def loolu noonu. understand lii dara la loo xamante ne comme nga jot dara sa la sa lëfin euh, sa partner it's not something loo xamante ne every year once nga ko war a def wala stop like that yéen yéen a ngi nekk yee comme su ñëwee suñ génération bi yéen a ngi nekk dara dafa war a dafa war a consist loo xamante ne yow soo gisee loo xamante ne kii maybe kii choice am la lan mooy njëriñu relationship pour ngeen gën a xamante yow mun naa xam sa kolo mun naa xam loo like mun naa xam loo bañ xam su ma gisee dala loo xamante ne yow da nga ko bëgg a mun naa la mun naa la koo jëndal waaye buñ buñ xool ne comme xam nga. dafa nekk like every year mu nekk once xam nga di jënd ay kii fële you yooyu noonu di dem kër di fekk sa morom foofu noonu xam nga di xee yooyu loolu yëpp amul njëriñ mm. man man de man jaaxabu def loolu noonu ah mm. mooy loolu. yéen kuy sa Valentine tey. Um, Valentine xam naa mu ngi seetaan. Valentine I think that it should be celebrated but my be my point of view is that Valentine should be celebrated by married couples. Yes, because some of these guys, the way, the way they celebrated Valentine is not correct to me. Mm-hmm. Some of them, they keep on buying a lot of gifts for their boyfriends. And some of those gifts, they, they are not worth it, you know. Some of them will buy boxes, all, all sort of things for your boyfriend. And some gifts, if you buy them for your boyfriend, it signifies what the boyfriend should do with the gift. So I see that Valentine should be celebrated only by married couples. Valentine, then go to celebrate. Why? Nick nekku ne sa lover rek nga ko war a celebrate sa family sa friends Yeah. What naa continuer dig nekku every time nga come like year to year rek nga war a uh, celebrate ak sa loved ones so every time da nga war di celebrate man Aminata Aminata lan nga foog si Valentine um, Valentine Valentine's foog naa ne it's something worth celebrating uh, because mun nga koo bëgg rek pour pour um, nekk mu nekk sa valentine mun nga comme like love is something that continues nekk ne something like 14 February rek la waaye it has to be every day every minute every second and that's it. waaw war nañ ko celebrate. lu tax am because li nga xam ne ne nit ñi ñu ngi ko celebrate yàgg na mm-hmm. so ñu ngi ñëw fekk ko fi kay war nañ ko celebrate.